set bi ci wàllum ñam yi loolu kaaraange la ci wérgu yaramu nit kii loolu lee doon li nga xamante ni restauratrice yi nekk fii ci Touba ràññee nañ ko bu baax loolu tax na dañuy jël ay ya ngir rekk selal seeni ñam. ñam yi moom nu ma ko mën a sellal naa ko sellal ndax biir kaso la lu ci dugg rek xamoo nu muy génne te booy jaay ay mbindeef dangaa war a xam ni ngay def. lu ma man ci set dinaa ko def. booy xaar service d'hygiène la contrôler nga doog a set rek bañ naa la defal nii defal naa defal ne loolu set loolu dañ lay yar da digal waaye loo xam ne danga koo ba ngay xale ca nga yaru màgg ci kenn dikk la jaarloo foofu ba ci ramas yi ngay fay baa ñu yóbbu say bagage mosuma am service d'hygiène ak problème. suñu sukkandikoo ci askan bi su dee am na ay jaaykat yuy saytu bu baax wallu set bi ci seen ñam yi am na ñeneen ñu nga xamante ni loolu yëpp fekkul leen ca. am na yoo xam ne set nañ mais am na yoo xam ne tamit euh, seen set moom des na quoi. waaw des fois nga dugg yenn kii yoo xam ne moom après na ree wata saal waaw c'est que àdduna moo demee noonu foo gis ñu taq rek am na ñu set waaw te état bi war nañ cee mën a gën a jël seen responsabilité quoi parce que baax na ci trop quoi ay nit dama jàpp ne suñu nekkee ci dëkk maanaam ñu leen di jox ñuy lekk war nañ leen a mën a xool li ñu leen di jox bu baax commerçant yi itam kenn demul ñu des ndaxte dañuy saytu seen produit yi ngir rekk bañ a jaay yu périmé yi jaaykat bu jigéen bi kenn la ci ñoom. su dul sax ci wàllu santé tamit il faut ñu bàyyi ci xel bu baax ndax ñun ñi di koy jënd tamit. su fekkente ne xooluñu date de péremption yi ba mu jot dañu obligé di sànni produit bi mais d'abord santé euh, nit yi moo ñuy njëkk soxal d'abord balaa loolu. te aussi euh, waa service d'hygiène dañ fiy jaar très souvent di contrôler di xool ndax euh, yëpp nekk na en règle wala nekk ko. ak lu ci mën a xew mën nañ jàpp ne ñam yu selul yi ñoom teg nañ rekk lu toll ci ñaari million ci ñuy ñàkk seen bakkan at bu jot suñu sukkandikoo ci xayma yi waaye itam ñam yi nga xamante ni dañoo am bactérie virus ay parasite wala ay yeneen substance chimique ñoom itam dañuy teg rekk lu toll ci ñaar téeméeri euh, feebar yu demee ni ay biir yuy daw wala ay cancer